Helping Children nag euh, leen rek moo ko initié muy ay euh, xarit ay sœur ay collègue toog di waxtaan xalaatuñu lenn nag lu dul dugg ci euh, mbirum social parce que gis nañu nit ñi naka la ñuy dundee gis nañu néew ji doole yi aussi naka la ñuy dundee te ñu ne gannaaw mënuñu créer association rek la ñu mën ànd di xàccandoo di dorundo di lijjanteendoo ngir mën a ay nit waaw. mois de décembre waaw. Mhm. man de de ma part personnelle su ma chaque jour mes social mais gannaaw mënuñu dañuy xool rek peut-être période événement yi nga xamante ne dinañ gën a soxla ku leen jàppale maanaam su mel ni weeru koor tamxarit tabaski korite yooyu nekk na yoo xamante ne ni moo gën a metti parce que actuellement lépp ci internet yi lay feeñ tey bébis day toog këram filmer ko dugal internet keneen ak keneen noonu alors si ci ginnaaw xam nga am na ñoo xamante ne dañ doon bëgg a passer seen fête bu neex et tout donc tey ñooñu ñoom lañu xalaat ba tax na bëgg nañu événement bu jot bu ñu ko suñu borom mayee ak bu ñu amee ñu ñu jàppale ñu jàppale ñi ñu war a dimbali bon actuellement moom comme réew bi dafa jaxasoo suñuy doolee la ñuy demee peut-être ay benn benn ñaar ñaar ah waa réew mi nag des des na nag des na saa mi ngi doog a toog waaw dafa jaxasoo woon ak xam nga waaw réew mi commencé na defaru mais période bi ñuy organiser réew mi daa jaxasoo waaw kay mhm. wax ah dañ ñaanal yàlla gudd fan rek ak sutura. aduna moom boo amee sutura am nga lépp. ah loolu de wóoruma wax dëgg yàlla yëguma ko woon de déedéet ah. Ah, bonne chance. Hein? Bonne chance. <laughs> ah, wóoruma de. Eh, suur la ah dama koy ñaanal yalla rek parce que yenn bi diis na te ku gis sénégalais yi niñ ko jappalé rek xamni que yaakaar nañu ci ñom yaakaar nañu ci sen projet lool mom motax sénégalais yi ñëpp génn. parce que li fi am nii gëj na fi am donc man dama koy ñaanal suñu borom teg ko loxo sàmm ko suturaal ko may ko doole nag may ko xolu muñ tamit parce que àdduna tamit dara xëyul sotti ça veut ko yow tey fal nañu la am nga sa projet da ngay xëy rek ñëpp am liggéey da ngay xëy rek réew mi naat da ngay xëy rek ñépp am xaalis waa ñun ñoo le ñoo ñoo ko war a jàppale ba pare ñun sénégalais yi ñoo ko war a jàppale ba pare de par bi ñu xoolaat ko civisme beeg yooyu noonu yëpp tey réew bu xol yi àndee lépp ànd dafay dafay dafay neex a defar ñu bañ a yàkkamti tamit te xam ni mënul tëb tëb tëb rek defar lépp waaw. Tay moom tamit tey lan nga gisee taxawaayam si ginnaaw ah li ma wax rek laay wax gannaaw Ousmane mooy Jomaay Jomaay mooy Ousmane ñoom ñaar laay partagé li wax rek ñaari <laughs> président lañ am ak ñeenti jabar waaw macha allah. léegi dañuy ñëw li nga xam cinéma depuis mu ñëw la nga gis mu ñëw la nga bon am naa ay projet yoo xamante ne nii euh, génnagul ma àndoon see ak ñoom Cheikh Ndiaye waa Soleil Levant yi saa neex Cheikhouna ay projet macha allah yu yu yoo xam ne moom bu génnee moom liñ naan dina tukkal àdduna waaw dina tukkal àdduna waaw muñal aussi euh, war nañu reprendre ah ci li ma yaakaar war nañu reprendre beneen saison donc euh, ñun ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di xaar dañoo arrêté woon rek mais bon xam naa dinañ reprendre sous peu. Ah, mais xam nga dañoo nekk ci réew moo xamante ne nii tey euh, liggéey fi yombul tey suñu maison de production yi dañuy am seeni ay film am lépp mais tey boo amul sponsor du dox te tamit da am sa sponsor. warko sédalé euh ay donc tay liguey bo xamante ni financièrement dang ci am problème fay taxaw tamit amuñu ñun tamit yenn euh, ouverture yi je dirais pas que né amuñu yenn ouverture yi sax mais pour man démarche mo dess des ci yenn waaw démarche yi dafa des bu baaxa baaxa baax financièrement aussi pour man dafa des lu bëree bëree bëri. ministre de la culture moom soxla nañ ko trop mosuma sentir ministre de la culture wax dëgg yàlla. ah damay ñaan yàlla bu bees bi kii ñu rek nu mu tuddati man damaa xam na la tudd man xamaguma actualité lan moo xew si dëkk bi xaw ma suba ba léegi yaa ma fekk fii mooy social. nek ci wañ bi xoolaguma ben sama téléphone sax guñ na ko yor. nga ni. yow da nga maa bëgg a dugal wala. wa légui yow la moo nga laaj ma kan moy ministre bi. mais yow tay ma ak yow ñoy yendul nan lay suivre actualité. kan moy ministre bi yow miss daa am. kan la. waa ñew wa ki ñëw. ñew <laughs> ki a ñew gëstuñu rek gëstuñu wa mosuñoo sentir culture bi de wax dëgg yàlla. waaw Amadou Amadou gëstu ma wuu sama yaay yow da ngay ruube quoi. Marodi non eh, ah. li muy tëb tëb rek dem maroo di tourné. bon ma si doon bon tiiragul ci dara. Mm-hmm. kan bañ xaalis micro bi nga taalal du xaalis fi tax wala lan ah boo liggéey bu amul dara moom dañ koy arrêté rek bu dee liggéey te amoo dara moom wax dëgg yàlla mën ngaa tëj sa site. may la léeb man léeb xale yi ma xamoon moom daa xaw a vulgaire bu hmm? léeb léeb léeb léeb damaa sonn ba mënumaa léeb sama xel bi ibbeekuwul fi mu toll ni ma demone koloban sama ginnar nen fa dé say ñu demaat koloban sa ginnar nen fa dé say ñu wër ci bédd bi daan may ma jox ma soqi <laughs> lool suñu histoire la <laughs> déedéet sutura sutura mo len gëna a moo leen gën a retaan loo moo leen gën a social dal la c'est que dañoo déggoo kenn ku ci dégg xoolee boromam xamna lu mu wax ah day am complicité rek day am complicité ci ay bët waaw ah ñëppay jëw nit rom nga ne ki da rafet sa jëw la te dégg ko suñu ah suñu bop ñun suñu bop suñuy jëw boobu daal suñu nettalante boobu comme yéen rek borom si di nettal rek dem nettalee leen fi indi. yéen boo doon ngeen dem mais bu ngeen dem waaye ñu doon xëy du ñu yor 100 francs am na un jour ba rek joom bu daw joo àndoon <laughs> ñu gis kenn rek daal na xëy na kii borom alal di ko tontoo soxi ñu <laughs> loolu mënu ma ko fàtte. ah kuma bu ndaw la de. après nga topp si. ma topp si ma ngay bon euh, maa ngi leen ci seen présence. sa invité wu ma leen te ñëw ngeen voilà. <laughs> yow dañ invité wala dañ laa invité yow maa la invité yow.

Hmm? Mimi Traoré Dieyna Baldé am na aussi ñu fu ñëwoon tey ñoo xam ne dañ ma gis rek bëgg ma te yàlla rek tax ñëw tey di ma jàppale tey ku gis kër gi xam ne tey liggéey bi yombul woon donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax waa au Kayar aussi maa ngi leen di remercier parce que ñoom lu ñu xewle rek dañuy ñëw def ci seen euh, doole merci El Pocho lu ñu xewle rek dañuy ñëw def ci seen doole

moo gét maa ngi lay remercier bu baax a baax yal na si jàmm yàgg. di ñaanal borom site bi aussi mu kawe man nag sama ñaan dafa baax waaw man man moom sama ñaan xamoo sax lu la ko wax loo borom site bi maa ngi lay ñaanal bu baax a baax yal na liggéey bi jëm kanam su nekkee dañuy tiitireel ay tiitirage yoo xamante ne neexuñu yal na ko yàlla dindi dégg naa danga koo bañ ah, dëgg la yal na yàlla jàppale hmm. ah macha allah kon yéen da a pro. ok ñooñu moom ñun ñoo ñun dëng yi moom moo ay pro ay pro ngeen ñoo dëng mais moom moo jub pro ma dëgg la macha allah dëgg la dëgg la ñun nag kii nag borom sëti jot loolu ku baax hmm. ah macha allah kan ko yàlla jàppale waaw moom na ñëw social bi kon gannaaw daal social borom site bi maa ngi lay woo ci social gi chupa chupa chupi maa ngi lay woo ci social bi nga jàpp si bu baax a baax baax <laughs> merci beaucoup merci